jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey ji mooy yéesu baal na ab jigéen juy njaaloo nettali bi mu ngi cosaanoo ci yowaana saa juróom ñett aaya ñaar ba fukk ak benn luk saar juróom ñaar aaya fanweer ak juróom benn ba juróom fukk gàddaay gi saar ñaar fukk aaya fukk ak ñeent sarti giiri lewi saar ñaar benn yowana saar benn benn bés yeesu demoon ca kër yàlla ga ay nit ñu bari ñoo ko wëroon mu toog di leen jàngal gannaaw gi ñi doon jàngale sàrt yi ak farisiyen yi indi benn jigéen ju ñu bett mu doon jaaloo ñu taxawal ko ci diggu mbooloo mi noonu ñu ne yeesu kilifa gi jigéen jii de dañu ko bett muy njaaloo ci ndigali yàlla yi jigéen ju njaaloo musaa dafa santaane ñu sànni ko ay xeer ba mu dee yow nag lu ci sa xalaat dañoo jëfandikoo loolu ngir fiir yeesu baam bunt bu ñu ko tuumaale waaye yeesu sëgg tàmbali bind ci suuf si ak baaraamam kilifa diine yi wéyal di ko laaj rekk mu sigg ne leen ku musal a def bàkkaar ci yéen na ko jëkk a sànniy xeer gannaaw loolu mu sëggaat tàmbaliwaat di bind ci suuf si ñi déggoon kàddu yeesu ya tàmbali dem benn benn ñi gën a màgget ñoo jiitu yeesu rekk des fa jigéen ja taxaw ca kanamam mu daldi siggi ne ko jigéen ji ana ñi la doon ji njaaloo ndax kenn tegu la tooñ mu ne ko kenn sang bi Yeesu ne ko manit ci sama wàll duma la daan demal waaye bul defati bàkkaar fii la nettali bi yem nanu jàng aaya bii sunu nangoo sunuy bàkkaar ci kanamam fekk kuy sàmm kóllëre la te jub ngir baal nu sunuy bàkkaar te sellal ci lépp lu jubadi benn yowana saar benn aaya juróom-ñeent